da ngeen daan yaa ñuy moom suñuy dund ak suñuy dee yépp yaa ñuy moom waaw asalaamaaleykum ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di nuyu ñëpp ah di jiital ci nuyoo bi suma xarit suma doomu ndey suma mbok Ibrahima wad miss Ibrahima wad mom mi nga xamanteni tay moy nday mbil gi di ci tek soxna Fat badian mi nga xamanteni engagement am ak pastefam ak par parlom momo waral li lepp tay di ci tek suma sœur suma xarit suma camarade de parti mi nga xamante ni gaynde la te xam nga gaynde gaynde ga ca gën a mooy gaynde gu jigéen sëy na bu njegeen gaynde gu jigéen la bëggoon naa yëkkati ay kàddu waaye boobu ba léegi campagne bi mu tàmbalee ba léegi noppaluwul jaay na lalam wala dénkaane na ko bokk ne ci mbedd mi dox ci askan wi visite de proximité débat meeting caravane ngirlan Dello, Kadougi, président de la république son excellence Macky Sall dama élection yi du élection yu élection Sénégal d'Anne na théoricien ñëw théoriciens yi taxaw di def ay calcul sondage yi di pronostic pour lan pour wax naka la mbir mi di mujjee waaye dama ne élection yi ñu jëm du élection wu borom xam-xam du élection wu bëri xam-xam xam ngeen lu tax du élection wu bari xam-xam ndaxte kart gi dafa leer ba pare langue politique gi tey jii na bu dañ ci doon waxtaan sànq mu ne ma ñaari camp moo fi am ñaari camp ma ne ko camp yan la mu ne ma dafa am benn camp bu taxaw soxla yi nga xamante ni ñoom Ndeye Kumba sekk ami ami de Marième Faye Sall wax na ko fi sànq te soxna Fat ba fàttali fàttalikoo muy yi nga xamante ni mooy naal yi président Macky Sall naal tàmbali koo liggéey te ñuy gis lépp camp boobu ñoom ñoo taxaw ñu ne nañu jox président Macky Sall majorité assemblée nationale majorité bu kenn du laam-laamee pour mu mottali liggéey yi xam ngeen ñun ñii ak Miss Ibrahima wàdd ak euh, l'ambassadeur son excellence Maguette Sey ak na bu njegeen ak Oumar Diop DG de la SAR ñun ñëpp Siré Dia ak ñëpp ñu ñu àndal ñoo ñu ñu àndal ci loolu la ñu nekk di ko liggéey di ko dox ci camp boobu la ñu bokk mais dama ne dafa am beneen camp bu nga xamante nii mooy camp bi nga xamante ni dafa ñu ne na ngeen leen jox majorité pour ñu arrêter liggéeyu président Macky Sall pour ñu gàllankoor liggéeyu Macky Sall pour ñu yàq liggéeyu Macky Sall pour ñu bloquer liggéeyu président Macky Sall ndax yéen da ci ànd kon dama ne élection yi jarul xam-xam bu rëy président Macky Sall moo fi nekkal askan wi loolu kenn laam-laam meewu ko président ak euh, Macky Sall moo fi nekkal jigéenu wéerul yi nga xam ne dañoo war a toll ci am doom te amaguñu ko nekk toll diggante moo leen fi nekkal président Macky Sall moo fi nekkal liir yi doog a juddu ba ba ñuy am cinq ans président Macky Sall moo fi nekkal baykat yi président Macky Sall moo fi nekkal mareyeurs yi président Macky moo fi nekkal xale yi nga xamante ñoo nekk di wit xëy ndax teg na ay instruments yu wër yu wér yoo xamante pour loolu rek la pour satisfaire emploi xale yooyu le kon président Macky Sall moom moo fi nekkal askan wi waaw ñu ne nañu bloqué manko bloqué liggéeyu Macky Sall ñun duñu ci ànd tey duñu ci ànd ëllëg ah moo tax may dellu di wax ne buñ ci def xam-xam wu rëy bulletin bi nga xamante ni moom ngeen di dugalal président Macky Sall xàmme ngeen ko bulletin boobu nu mu mel lan la yor lu ñuy lekkam lu ñuy naan la lu ñuy def ci mburu la wala lu ñuy def ci ceeb la dafa lan dafa sokolaa yéen a ko wax am bopp fas wi loolu rek lañu ñu soxla woon ah ñi ngi gërëm ñëpp di sant. li tax ma ñaan ngeen déglu ma damaa yaakaar nii bu naj bu ñu dajee ci ndaje bu am solo bii bu ñu fi jógee dafa war doon njëriñ ak yokkute pour ku nekk te damay faral di wax ni li ñuy wax émergence ci fànn yu bëre la waaye dafa am fànn boo xam daf ci am solo ñu mën a dégloonte di déggante kooku benn fànn la boo demee ci dëkk yi nga xame ni ñoom la ñuy wax day pays émergents yi bu ñuy def mbir dañ koy def ak fulla ak fayda looloo waral ma ñaan ñu dégloonte ma door daal nuyu chef de quartier bi nga xame ni moom lañ fekk sëñ Lo sëñ Amdi Lo nga xam ni moom dañ ko war amel njukkal li tax ñu ameel ko njukkal mooy ni dañu organiser lii mu jóge këram ñëw ñaanal ñu ci ñaanal ñu yàlla gindi ñu teg ñu ci yoon ñu ñaan ñaan boobu mu fi ñaan yàlla nay doon njiglaay pour ñun doon njiglaay pour réew mi doon njiglaay pour président la république Macky Sall bi nga xam ni moom la njaboote ñun ñëpp te bu ko jigee jig Sénégal may sant yàlla bu baax a baax a baax a baax di sant yàlla bu baax di sant di gërëm jigéenu cees di sant di gërëm jigéenu Thiès moom man dama tiit bi ma dugusee bu ngeen seetloo ñi fi njëkk ñëw ñëw nañu def benn tour demaat ndax dama ni Fat Badiane bi ñu fekk muy nekk sama oto moo kumba yoon ma mbir mi du waxu waxante woon lii man dama doon gane si rek dama doon gane si samay jigéen di gane si samay yaay samay bàjjan samay mag ak samay rakk mu ni ma ñun xamuñu lu ndaw dëgg la ñun jigéen jigéen yi Cees xamuñu lu ndaw xamuñu defantu bu ñuy def dañuy def mu mat ma ni ko comme demee na noonu dem nga ah dem rek moo ci des ma ñëw gis mobilisation bu jekk bu rafet bii sama xol sedd lool ci jigéenu Thiès sama xol sedd lool ci jigéenu Thiès Nord sama xol sedd lool ci jigéenu Medina Fall bu waxee Medina Fall fi ñu nekk waaye jigéenu bépp gox bu nekk ci cees bu ngi fii particulièrement zone nord sant batay ñu leen di lim di leen tatagal di leen sargal damay sant yalla bi nga xamé ni doxna ba mu bolé ma ak suma sœur Kumba Yomb sey gey mu nekkon di yëngatu ci développement ñu ci xaw nekkano ci mbir di liggéey ba lu mag lool nga xamni def nañ ko ci walu développement première dame soxna Marème fay Sall gis ko ni ñi de Ibrahima dina len jappalé ñu ñew ci cérémonie bi pour inaugurer unité de production de céréales locales boobu muy lo xamni ni dafa am solo lool pour jigéeni Thiès am solo lool pour jigéeni Thiès mo ba ma ñew ma dajé fa ak sama soxna ak soxna Fat Baña nga xamni ni moom Omar la xamante loolu xamante seq kóllëre gu am solo Fatou wax fa wax bo xamé ni maniko ni man de neexul ba neexul waye yeen la do wër maniko man Thiès yeen ak may doog a ubbil bunt bu may wax buntu buntu développement parce que bama la lay wër Sénégal ci walu développement fu nekk dem naa fa gis fa ay jigéen ñuy jàmbaar lool mais toujours mu am lu ma naqari ma ne waa man nan laay def ba jigéen cees ñu jàppale leen ba ñu mën a def ni jigéen di feneen di def ma ne yunnu rek daj ci ñoom ma sant yàlla mais plus may xuus ci biir plus may gis ni te ñii xaaruñu ma woon sax ñu nga woon ci mbir mi ñu sant ci yàlla bu baax ba toog wo sama dom ndey Lamine Fall Lamine jay ay sa Fall ma ko Lamine man de dama am problème man ne ma ko ndekete ñun li ñi xeeb suñu gox bi yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp la ñuy wuti fenen mu ngi fi ma tektal ko mu ni man jay ñoñu nak ndekete ñoo yor affaire bi ma ñëw dañu len won amna luma fasiyene indi pour wan leen tout ci lima ma mën ci japp pour pousser parce que yéen ci yoon ba looloo waral tey soxna Fatou Badiane soxna Koumba ni ma leen ko waxee woon ne woon naa leen produit détergent dinaa leen ko indi li tax ma sañ koo indi parce que dama soxla suma xarit bu ñuy wax Makhtar Diagne muy opérateur économique di jàppale jigéen ñi moom tam njoo mbooloo mii ngeen gis njabootam lañu moo wax ko loolu mu ni ma sa jigéen ñooñu ne bu ñu yeboo ñu xam ni fas naa yenn sa ja sàmmanteeg ñoom coloré sama contribution dana la ko jox nga tek ko sen loxo ni commencé ci liggéey mané len won te unité bi baax na waaye pour mu meuna a wasaarewu fu nek il faut ngeen am fond de roulement dana wuti luma am ànd ak sama am di jam ñeu indi len lolo waral bëss bi tay bëss bi bëssu kaddu guñu xam yëkëti won nañ ko ak yene lañ motal ci fi ak suñu jigéen ñuy sant yalla nak bi nga xamé ni soxna fat badian soxna Kumba yomb man sen kurel gi def ba yeen parce que foy set jigen bu nek ci walu développement rek bir Thiès ñu ngi ni bu fekke ni plateforme la ñi wut pour jëm kanam am nañ ko à partir de jour yéen a ngi fi woon gaa waaye Lamine ñun ñoy doog a ni ñi wax ñun ñoy doog atterrir dañu atterrir parce que yéen ak ñom nak di jublu ci liggéey bo xamni parce que election batna lool waye election benn temps rek la développement mom day wey di wey di wey di wey te comme fas nañu yéne and ak yéne di ngeen gis man ak suma xarit Lamine Aïssa Fall ak suma euh Seyna bu njëgeen li nga xamni tay ji gis nga dafa waxa wax wax malgré li bëgg jigen yépp bëgg na yëkkati kaddu waye baat bi bay di ngeen gis lo xamé ni ak ñeneen ñom Omar Diop ak ñeneen di ngeen gis li nga xam mom lañu fas def jëmale ko ci yéen ñi parce que yeen ku len jappale ngeen dem ku len jappale wu fan ngeen dem nak ku len jappale ñu fas ko yéene nak ma wax fi ci ties ma wax ko niko yeen lañu bëgg sekkandiku wëru seen mbag def len rampe de développement pour le développement de la ville de ties loolu nga xamni président la république Macky Sall door nako ties diko def diko def diko def ba ñepp tek ci seen bëtt loolu lañu bëgg mu gën ñu capacité ngeen capacité seen bop pour ngeen yor le développement de ties dana mën na ko te dina ko def lu tax mané dina ko def seetul ko and ak mom seetul ko andul ak mom Lamine Aïssa wax na ko léegi dressé na bilan président Macky Sall limu def ci jigéen ñi ak ci to nit ñi ak askan ñi vidéo ba nga xamni depuis suba mu ngi fi mu ngi fi di tourner di wax réalisation président Macky Sall limu fi def donc mën na baña delu ci lool waye lo xamni mën ma ci baña delu ci mooy lii nga xam ni defal na leen ko defal na ko jigéeni senegal dañu war a góor góorgóorlu dalal xelam dalal xelam mooy ci lépp lu muy yóotu ñu jox ko may sant yàlla bu baax encore une fois bi nga xam ni sama sœur Fatou Badiane wax na fi officiellement et solennellement comme nam ma ko waxee woon ci biir néegam que fas na yéene ñëw jàppale président Macky pour mu am ndam Thiès ba ba keroog muy doyal ndam mu koy am désormais à Thiès ma la ci gërëm bu baax ci sama tour waaye di la gërëm ci tour bépp responsable bu nekk Thiès gii di la gërëm aussi ci tour président de la république Macky Sall ngor fañ na ngor ruuga dem na falu falu ku bayoon daf la fekk liggéey bi daf la fekk liggéey bi yow dañ laa capacité rek pour nga gën ci góorgóorlu waaye nag ñuy sant yàlla bu baax gis naa sa taxawaay ci wàllu développement gis naa sa wàll sa taxawaay ci wàllu APR ak Benno Bokk Yaakaar wane nga ko ba mu mat sëkk ba bépp responsable fu ma dem ci biir Thiès tudd fa sa tur ñun ma kooku jàmbaar la mu ngi woon ci waar wi ñu gën leen ñaax ngeen gën a nekk ci waar wi dafa am loo xam ni soxna Fatou wax nga ko ci sa ci sa kàddu da bëgg jigéen ñi liggéey pexe pexe yi ñu liggéeyee ngi fi yéen ci wan de mais pexe yaa ngi fi nañu àndandoo bu ñu defee élection le 30. ñu toog tuuti dallu noppalu feete victoire bi parce que bërki démb ba dama wax ni Benno Bok Yakar le 30 juin à minuit day doon Benno le 30 juillet à minuit day doon Benno Bok Victoire affaire bi Y bi il faut ñu commencer dafa d'ailleurs dafa xaw ni rom fee sax Benno Bok Yakar la à partir de minuit ñu def ko Benno Bok Victoire ñu fett ñu nos parce que nos bi tam ci la bok waaw bu ñu paree nag bu ñu ci tegee quelques fan ñu jublu ci liggéey dama bëgg yéen ties yeen jigéen jigéeni ties nor yi dama bëggoon ñu jël engagement Fat Badiane wax na fii waxi souf dam ties commune jafé na pour am fi souf waye ties département

dafa les le Sœurs Unies de Marianne Faisal avec le mouvement des femmes de développement de Thiès Nord C'est le grand mouvement qui a été fii lay le président Macky Sall victoire au niveau de la commune de Thiès et au niveau de la du département de Thiès et de la région de Thiès Nous sommes yàlla tam bi nga xamee ni xale yi dama fekk le président de l'ASC may wàcc rek ma yàgg lool ci oto

le ministère des sports le directeur de cabinet du ministre des sports est venu assister à la cérémonie de test de l'arrosage automatique du stade Léopold euh, de Thiès Madame stade bi nga na fi président Macky Sall avons un engagement ni stade parce que ku xam stade xam nu mu amé solo ci sport nous ni danaa ko defar tay

de fa ay des de fa ay filet de fa ay limite suñu ak suñu qui am ci sport deuxième élément du plan d'action bi nga xam ne troisième élément du plan d'action parce que dañuy wax politique développement nous avons politique bi wéy ñu xaar benen. nous fan une semaine suñu développement troisième élément du plan d'action bi nga xam ni moom moi, investir le domaine de la santé la santé des femmes la santé des enfants la santé des jeunes la santé des vieux Lolo, le mouvement des femmes de développement de la de Nord avec les sœurs unis de Mariam Faisal, unis ensemble derrière Lamine Diaye, derrière Ibrahim Awad, derrière Seine Ndiéguène derrière Omar Diop derrière Ndiaga derrière tous les responsables de àndandoo di sillonné gox yi di au niveau de la zone nord du au niveau de Thiès dans le domaine de la santé quatrième élément du plan d'action C'est que il faut que ci le développement bi xam à la périphérie quatrième élément plan d'action bi mooy ni ñuy ci école yi fu ardoise toj ñu poste cotiser fu miir di bëgg daano nga xam ne mën na lor suñu njaboot ñu ñëw dajoo dajaloo jënd mool fay maçon mu daaneel balaa muy daanu ci kaw xale yi ñu réparé bañ ci xaar dara état bu état ñëwee fekk ñu ci parce que état dinañu ñëw dinañ ci fekk ku xam ni nga xam ni président Macky Sall mu ngi koy def ci sur l'éradication des abris provisoires partout dans l'étendue du territoire national nga xam ni bu ñu commencé lool danañ ci fekk waaye bi gën a am solo mooy yéen jigéen ñi un mouvement yi da ngay Lamine man ko Lamine bëgg xam lan avec xam nga avec avec rek e, C, c ci le ndekete avec mbir la ni Sénégal inventé mais c'est un système véritable d'inclusion financière muy lu yéeme loo xam ni yéen ndekete la tubaab di théoriser Jacques Attali loolu ñuy théoriser yéen a koy jëf ndekete ma xool ma ni mais ñun nag ndekete ñun ñoo tardé dëgg dëgg dëgg dëgg ñun góor ñi mais ndekete jigéen ñi ñu ngi def le vrai développement loolu laa bëgg fii à Thiès dama am benn xarit boo xam ni dafa am un système boo xam ni informatique bu mu développé bi ma ko waxee démb avec bi mu ne ma dinaa ñëw ñu modéliser ko dugal ci système informatique boo xam ni dañ koy électronique nga xam ni ku ci nekk dana ci gis sa bopp am lo xamni fi la bëgg tok ci ma annoncé ko ku ci nek fi sa njabot am nga jafe-jafe ci walu bu école ubé nan ngay taxawé njabot gi nan lay taxawé askan bi dama jël décision def ben programme de bourse ki dem mang ci waxtan ak Lamine programme de bourse bo xamé bu école dee tëjji té ren lañ koy door te yéna koy parrainé bu école dee ubbi dañuy wut kër gu nekk benn plateforme informatique loo am ciy doom ak seen inscription nga dugal leen fa programme bi pare na ba noppi modèle bi moom mooy tiire déet déet joxuma ñëpp bourse de joxuma ñëpp bourse programme boobu moom mooy def tirage au sort chaque année déet pas les meilleurs élèves dañuy définir un critère social ku dugg ci système bi am nga ci droit waaye système bi day tiré les ni, ñi chance parce que ñëpp avons une chance ñi ci une chance ñëpp ku ci nekk ñu bourse bu 50 000, pour que mu doon inscrire le manuel scolaire pour mener d'or. man suis sama bop fas na ko wax ci micro fas naa yéene def ci sama alal un sama xarit zone nord expérimenter fi modèle Lamine mii dina ci dugal alalam Seynabou dina ci dugal alalam waaye yéen ñi tam ku am juróomam dina ci dugal ku am cent franc dina ci dugal ku am mille franc dina ci dugal ñu jël cagnotte boobu def ko une cagnotte boo xam ne day doon démocratique du bourse aide la rek pour que rentrée scolaire bi ku ci nekk mën a ñu mën a ab tirage au sort élèves yi nga xam ñoo ci ëpp chance ñooñu au moins ñu jox leen chance bu ñu génnee mu leer leen dañ am lu ñu jënd kaye lu ñu jënd bic lu ñu fayee seen frais de scolarité loolu mooy li nga xamee ni mooy programme boo xam ne dinañ ci door balaa octobre bi di ngeen gis tirage au sort bi dinañ leen woowaat yéen wala la presse ngeen teewee loolu loolu lépp baax na loolu lépp baax na waaye balaa nga naan naam ne fa te li ñu naan naam pour ñu nekk fa fii ak ñetti fan la fii ak ñeenti fan la te mbir mii la mbir mii la mbir mii la de président Macky Sall dafa soxla majorité. niko Lamine waxe pour yegale ligueyam Thiès jigéenu Thiès dama bëgg ngeen jël engagement dama bëgg Fatou ngeen jël engagement xawma da ngeen koy affaire xawma da ngeen koy jaarale yon xawma da ngeen koy voter xawma da ngeen koy luxus ngeen jox président de la république Macky Sall majorité taccu len bu fekkee ni gëm ngeen ni di ngeen ko jox majorité da ngeen ko wara jox majorité. bu ngeen ko joxee majorité waxuma man nag Lamine de ak ñoom seena bu de ñun suñu ñun mën naa ni suñu affaire baax na ba noppi waaye ku mel ni faat Badiane mii mu jël ko gëm ko moom ak ñeneen wala ñoom Kumba Yom wala ñeneen mu dooleel leen bu leen dooleelee yéen mii yaakaar naa ne bu beneenee du ngeen soxla Ibrahima Wade pour détergent de du ngeen soxla Ibrahima Wade pour fond de roulement yéenay demal seen bopp bu ñu sàgganoo Lamine ñun ñooy daw seen gannaaw pour am fond de roulement loolu ngeen war a dynamique boobu ngeen war a demee xuloo bi jaru ko xeex bi jaru ko wax ji jaru ko jëli leen seen carte seen bulletin de vote comme ni ko Lamine waxee bulletin bi am couleur bi nga xam ne moom la ñuy naax ci mburu muy chocolat bi moom ngeen di jël dugal ko ci biir dugal leen ko ci biir yi ciy des yëpp moom duma leen tudd xaw ma sax nu ñu mel parce que intéressé wuñu amul solo bi am solo moy bi nga xamni moy bu sokolaa bi bu sokolaa bi am bop fas bi mom ngay ni jël dugal ci enveloppe bi baña a enveloppe bi dal di koy dugal dal di karawaas jabal fas bi mu dem yonam ba gañe le 30 ñu am li nga xamni moy victoire ma ñew ba fii nag mënuma saluer sama frère Omar Diop sama frère Omar Diop mon frère Ndiaga Wade

li am solo mooy jëm ca kanam la am solo mooy fasante kóllëre fii tey ñu ànd àndandoo jox président Macky Sall victoire bu ba bu bu le lendemain de la victoire ñu feete ko buñ ko feetee ba ba noppi jublu ci liggéey bi ak ndimbalam ak jàppaleem loolu mooy li ma fi bëggoon yëkkati di kaddu vraiment maa ngi gërëm ñëpp di leen sant di wax nag ni li Lamine Ndiaye wax li Lamine Ndiaye di wax suba am na démonstration de force. bi nga xam mooy deuxième démonstration de force après bu premier ministre Diallé keroog le samedi 22 fële ca terrain Jean Collin ca Jaxaaw ci caani Jaxaaw caani dafa am ay xale yoo xam ni bu lii lépp mënee nekk tey naam dañ tafu ci man waaye ñoom ñoo ko nekkal muy Birane Mbaye responsable politique APR ba koy gërëm di ko sant muy Khalidou Diallo xale boo xam ni Dakar la dëkk waaye bi campagne bi commencé ba léegi bàyyiwul mu ngi fii di Ousmane Ba doomu Thiès Grand décidé Nord la jëm parce que nee Thiès Jom moo gën a xumb moo neex les étudiants et élèves républicains may particulièrement Fat di la sant a particulièrement Koumba Yomb ngeen may oui bien entendu euh, je voudrais d'abord euh, rendre grâce à Dieu mais surtout me réjouir de cette très très grande mobilisation mais surtout de l'adhésion des femmes de j'ai failli dire les femmes de zone nord mais je dis finalement des femmes de Thiès parce que le mouvement des femmes de développement de Thiès Nord derrière notre sœur Fat Badiane les Sœurs Unies de Mariam Faisar, derrière notre sœur euh, Gay, nous ont aujourd'hui donné la preuve que les femmes de Thiès, les femmes de Thiès Nord, sont avec la politique du président Macky Sall, sont avec la coalition Beno Bokuyakar. Je suis très content de cette rencontre, de cette mobilisation, cette très très forte mobilisation, de cette très grande mobilisation, qui a été pour nous l'occasion de parler avec les femmes, de communier avec les femmes, d'échanger avec elles sur leurs orientations de développement, mais surtout de voir combien, elles sont braves et combien elles sont dans la voie du développement. J'ai été avec mon frère euh, Lamine Ndiaye Aïsefal, qui, comme vous le savez, est un militant authentique de l'Alliance pour la République, un grand champion euh, dans la zone nord. Nous avons ensemble assisté à cette cérémonie de remise de dons. Cette remise de dons qui permet aux femmes de pouvoir exprimer leur talent, s'épanouir dans ce qu'elles ont de si cher, qui est le développement économique. Mais nous avons aussi parlé de politique parce qu'elles sont, déterminées et engagées à, derrière le président Macky Sall pour un très long bail avec nous, mais surtout pour euh, l'échéance qui nous attend, c'est-à-dire les élections législatives du 30 juillet 2017, se mobiliser, aller chercher leurs cartes, aller sensibiliser leurs leur, consoeurs, leurs filles, leurs leur maris, leurs époux, leurs fils, pour que tous ensemble nous puissions donner la victoire qui, doit être, en tout cas au niveau de Thiès, Nord particulièrement, au niveau de Thiès, au président Macky Sall, à la coalition Beno Bokouere. C'est véritablement le sens de cette grande rencontre. Vous me donnez l'occasion de remercier très chaleureusement mon frère Lamine Diaye, qui abat un travail extraordinaire à côté de tous les leaders, que ce soit Sénébou Boudjegel, que ce soit Omar Diop, les Ndiagawad, vraiment tout le monde, les Asugé Ndiaye, tout le monde mobilisé comme un seul homme derrière aussi la coordination avec le ministre Augustin Thiel. Mais vous me donnez l'occasion aussi de saluer très sincèrement mes soeurs euh, les honorables dames euh, Fatma et l'honorable dame euh, euh Koumba qui sont de véritables femmes de développement, qui ont une capacité de mobilisation des femmes pour la cause du développement, mais qui ont décidé de s'investir dans la cause politique aussi, avec, le, tout le leadership, derrière le président Macky Sall, derrière nous autres, et j'allais dire tous ensemble avec nous autres, pour véritablement que Thiès retrouve sa place, que Thiès trouve c'est la réconciliation qui doit être avec les pouvoirs politiques pour que davantage d'actions de développement puissent être impulsées dans cette ville, cette ville qui est très chère, qui renferme de plein de potentialités, qui ne demande qu'à être mise en valeur avec les Thiessoises et les Thiessois.